bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du ñu xëy la tàgge xam-xam bu ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokki Sénégal mbokki àddina bi mbokki seetaan aaxiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci aaxiru zaman di sant yàlla borom bi tabaraka wa taala mi nu may ci mbaaxam nu del siwaat fas yéene àndaat ak yéen ci émission bi di aaxiru zaman émission bi ay semaine a ngi nii amul li ko sabab nag mooy nekkoon ci tukki demoon fële ca Maroc di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñoonu dalaloon foofa ca Maroc rawatina waa Union sans frontière di ay sénégalais yu génn nekk bitim réew di daan seen doole di ay góor ak jigéen lëkkaloo ci kuréel ngir xamante ak jokko ci turu kuréel boobu noonu la lan nu invité jaaree ko ci sunu jigéen bu dul bëgg léeg-léeg ñuy tudd turam ñu dalaloon nu fa ngir gàmmuwaat gi ñu àndaat ak noo ñoom ci waxtaan ni nga xamee ne daaw dalaloon nanu fa ñu àndoon ak ñoom tabaarakallaahu ren loolu moo tollanti ko waatoon lu man ñaari semaine ñi nga foofa ca Maroc ca Fès tabaarakallaahu alhamdulillah ñibbisiwaat nañ Sénégal ak jàmm ñu ngi ci jàmm ñu bari nag ci ay soppe xëy na ba ñuy dem ci jataay bañ mujjoon a amal ci daayira bi junjoon nañ leen ne dañuy génn waaye fooguñu woon ne dana def fan yi mu def ba sabab na ñu bari léeg-léeg ñu bind walla ñu yónnee ay message di laajte géej gee dégg mbaa jàmm alhamdulillah jàmm rek la woon lii nu wax nii moo nu téye woon del siwaat nañ ci jàmm fas yéene àndaat ak yéen ci liggéey bi ci jàmm ah di namm waa aaxiru zaman nag sama technicien Mor Diallo ak ñoom Omar Samb ak équipe bi yëpp tabaarakallaahu namoon nanu leen ah bu ñu sañoon daal fu jeudi jotee ci guddi vingt ngeen seetaan seen émission waaye nag léeg-léeg nii lay tëddee tabaarakallah tey nag incha allah sunu thème dafay wax ak képp kuy jullit rawatina nga am njaboot thème bi mooy mbaa man nga liir alquran yaag say doom <laughs> loolu mooy thème mbaa man ngaa liir alquran yaag say doom mu mel ne benn laaj la boo xam ne réponse bi après yow yaa koy jox sa bopp réponse bi ci saa si nii ma waxee thème bi mën nga jox sa bopp réponse bu dee am ngay njaboot boo ko amagulit mën nga jox sa bopp réponse benn mooy mën naa ko wala mënaguma ko waaye bul fas yéene bokk ci ñi ñi nga xam ne duñ ko mas a man benn nga ne mën naa liir alquran am naay doom doom yi mën nañoo liir alquran liir laa koy tuddee waaye jàng laa ci namm damay jëfandikoo terme bi gën a jege liir maanaam nga xam ne nit léeg-léeg mën naa liir liiram dëgëragul muy avancé ba liiram dëgër mu mën a jàng li ma bëgg a wax rek mooy fexeel a man alquran fexeel sa njaboot man alquran li tax thème bi nag ñu bare bare baree bari tey seytaane seytaane seytaane fëkk na leen sëkkatal na leen rëppatal na leen nërmel na leen ba tàbbal leen ci kàmbu bëgg àdduna ak wut àdduna ak fàtte yàlla ak fàtte alaaxira ba tax na taluñu lu dul lu leen di may dërëm ak lu koy may seen njaboot ëllëg mu man leen caa sédd ba tax na taluñoo jàng téere yàlla bi taluñu seen njaboot jàng téere yàlla bi jànguñu ko jàngaluñu ko seen njaboot moo tax ma ne la ndax mën nga liir téere bi yàgg say njaboot bu ñu jógee ko ci émission bi nga dugg ruq manakan ruq manakan bu fekkee mënoo woon liir lire alquran nga posé question lu tax man mënuma lire alquranul karim lu tax may gis ñeneen ñi buñ demee ci yenn xew yi rawatina lu mel ne wàcce kaamil nga xam ne réew mii di Sénégal lu nu miin la lu nu xam la cay maam cay maamaat cay maam mataar boo amee ku faatu dañuy faral di dajaloo di ko jàngal téere yàlla bi yow nga posé question sa bopp ne waaw lu tax man dëj bu ma dem bu ñuy jël jukki duma ci bokk lu tax man te man may jullit ñay jàng kaamil ba di jullit léeg-léeg sax ña ca nekk di jàng maa leen mag léeg-léeg ay xale la doon am naa doom yi toll ne ñoom wala ñu mag leen te man sama doom bu ma àndoon ak moom ci dëj bi mënul jël jukki mënul maa jël jukki lu xew ci saa si mën naa am lu doon nelaw ci yow yeewu nga ne waaw man de am na ngant lu daboon sama woyjur ba ma téere bi ngant laa koy tuddee ngir rafetal ko ndax woyjur bi léegi nga ne man nag ngant waruma dab ba samay doom duma leen jàngal téere bi samay woyjur amoon nañ ngantal jàngal ma téere bi man duma am ngantal jàngal sama doom téere bi waaye en même temps ma jàngi téere bi tey da nga gis ay mag ñu dem ba li doon nelaw ci ñoom yeewu ñu yëg ne kat seeni woyjur seeni wayjur seeni wayjur am na ngànt lu leen jàppoon ba jàngaluñ leen téere bi ñu dem ba làq juróom benn fukki at ak lu topp delluwaat uti ku leen jàngal benn mu leen di fekk si di leen jàngal wala ñu koy fekki mu leen di jàngal waaye danañ ca nab nabi soixante ans de ba mën a liir soixante de ba mën a jàng alquranul karim soixante ans de ba mokkal ay saar yu baree bare baree baree bari lan moo leen ci gunge seen yitte gannaaw bi nga xamee ne la doon nelaw ca ñoom yeewu na yow yeggagoo 60 ans yaa ngi am 20 ans yu teg 30 ans 40 ba léegi mën liir téere yàlla bi am ngay doom doom yi ñii am nañu BFEM ñii am nañu bac ñii génn nañ université kenn mën go cee liir téere bi lu xew laa ilaha illa ay waay ay waay ay waaye ñun jullit ab jullit bu dem ba nga am yi weex tàll ak bee jaaw mu mën a liir fukki journal ci jour bi mënul jàng benn xisibu alquran laa ilaha illa allah balaa ngaa xam njëriñu liir téere bi nga dem ba am jot occupation yu bari yu la tënkoon ba teelaa jàng tinkee ko ci yow nga am jot dara gënu la rafet mag mu yeewu léemoo téere bi léemoo téere bi léemoo ay njabootam téere bi amul lu ko dàq mag moo xam ne yeewu na ca njël sang ca njël julli ca njël léeg sax mu yor kurusam tocc toccal ca lëndëm nga ba mu leer xëy na sax dallu na ba yeew wala laataa muy dallu mu jénge mu génnee téere bi am na koo xam ne ca njël moom lay léemoo laataa fajar di jot wal mustaghfirina bil asxaar mu génnee téere bi sol lu yiw jublu penku ubi di jàng kudul dul moom mag mudul dul mag mooma mag mooma dana ñee mag mooma boo demee makkatal mukarram wala nga dem madinatul munawara ci ngay xamee <laughs> ne boo jàngul alquran da ngay tuuti ndeysaan dangay tuuti dangay ngay yëg ci sa bopp xeebu goo yëg ci sa bopp dana ngay am koo dendal bu dee jigéen nga wala ngay góor ngeen tolloo benn âge nekk ci benn sàppe nga toog yow amoo loo def xëy na sax mën nga yor sa kurus di tudd yàlla waaye nga gis ñu bari ñu la wër ku nekk yor kaamilam di jàng alquranul karim nga bëgg a def li ñuy def te manoo li ñuy def ci ngay yëg ci sa bopp ne am nga loo manqué mbaa fas yéene nga loolu du dal sa njaboot mbaa fas yéene nga du dal sa njaboot am na koog li ko raw ngir mu dabaatal ko du yomb waaye ki ne samay waajur am na ngant lu leen jàppoon ba jàngaluñ ma téere bi léegi am ngay doom bu dee am na looy regretter ci ñàkk jàng téere bi dabaatal ko ci say doom waaye sa maam jàngalu la sa baay sa baay jàngalu la yow yow nga ñëw ñàkk a jàngal sa doom mu nekk réer gu nar a ëpp naa def ëpp naa def xëy na yow message bi nga jot sens bi nga am xam gi nga xam yeewu gi nga yeewu ci sa diine sa sa wayjur sa wayjuru wayjur wayjuru wayjuru sa wayjur amuñ woon yeewute googu noonu le keewute googu amuñ ko woon te yow yàlla may na la keewute gi nga mën cee profité waaye tey da ngay dugg ci biir jullit ñi def sondage gàddu sa micro benn Mor jàll mooy génn gàddu mikoro am dajeek ay ndaw ñu bari ci mbedd mi tari loo leen fatiha fatiha bi du set te koo ci làkk looy tubaab mu làkkal la tubaab bi tooy xepp loolu àggante ndaw wi la wala woy juram la yow woy jur bi yow woy jur bi lu tax sa doom ji ba léegi mokkalagul fatiha te am na fukki at ak juróom laa ilaha illa fukki at ak juróom quinze ans te sa doom ba léegi fatiham setul mbaa fa séene nga koo dabaatal dabaatal ko dabaatal ko ba tax na danañu indi ay texte yoo xam ne nii dafa delloo siwaat waajur wi conscientiser ko ngir mu mën a bàyyi xel ne njabootam gi faratala mu jàngal leen téere bi bépp waajur bu ami doom jàngalu leen alquran ba ëllëg mu dem taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala dana layoog yàlla dana layoog dana la yoo doomam ca kanamu yàlla li tax jàngalu leen téere farata la obligation la ci way jur wu ne mu jàngal doomam alquran du lu ñu sopp de du ngëneel de du sunna farata la farata la farata la te la barke la li ngay xinte woo yëpp ci sa doom ji jàng tubaab nga dem fayale ko école ya gën a cher ndeysaan barki démb rek dama taxaw ci station bi jël carburant ma gis ñaari oto ña nga duyi élève ba fees may xool sama xel naan ma yàlla na fekk ñi ngi jàng téere bi bu dee ay jullit lañu te gëm naa ne ña ca nekk ñoom ñàkk ñoo dooni jullit ma ma ma koy maanaam sama sama xol ma am bëgg-bëgg yàlla na fekk ñi ngi jàngaale téere bi waaye malheureusement am na ci ñoo xam ne seen doom jàng tubaab moo leen gënal mu jàng alquran du yàlla de utoo ci yàlla addunay képp la bu dee doom yàlla ngay ut ci sa doom li nga koy jàngal mënoo fee bàyyi téere yàlla bi di ko jàngal téere nasaraan bi àdduna képp la maanaam yow dañoo dugal ci sa bopp am yenn yuñ la wan léeg sax yow yaa ngi koy dund ne la boo jàngee téere tubaab bi sa àdduna day jag dangay am liggéey di fayee ko xaalis loolu lañ def ci sa bopp bi nga gëm ko effectivement da ko gëm loola waral bi nga amee doom jàpp nga ne force ñoom ñëpp ñu jàngi tubaab waaye gëmoo gëmoo ko gëmoo ne say doom dañoo war a jàngi alquranul karim benn da leen di yóbbu ca daara ja ñu dëkk fa wala boog dañuy jàngi di wàcc wala boog daa am ku leen di jàngal si waaye daal yow danga fexe bañ mën alquranul karim boo ko gëmee benn ci dana am boo ko gëmul nag benn du ci am benn sa doom daal moom not yu baax na ko am loolu nga toppatoo su jàngee ba vacances jot nga jël ko yóbbu ko ca réew tugal ya moo xam fooy taamu yóbbu ko fa mu def lan colonie dem sangu cay piscine defi ay visite tëdd ci kilim lekk naan quelque jours des école ubbi nga delloo si waat ko ñu yóbbu ko ca école nasaraan ba la ilaha illallah ba sa doom am nangami at ca école ba dégg tubaab mën ko bind man ko wax ami diplôme te ba léegi feragul ijji mhm. ndax lan sa doom da koy jaarale fi la say waajur jaarale te nee naa la say waajur say waajur jàppal ne dañoo amoon ngànt ngant laa koy tudde yow nag moom du ma la wax ngant mais yow càggante moo lay jàpp yow càggante te li ci doy waar ku ne la jullit nga nga kontaan ku ne la doo jullit nga mer jullit baat bi baatu jullit mooy lan kiy julli julli booy julli looy jàng ah téere tubaab bi déeret looy jàng téere tubaab bi booy julli booy julli looy jàng téere yàlla bi ah d'accord léegi yow mën nga ne da julli tere yàlla bi ngay jàng sa doom yi nga ne leen nañuy julli téere yàlla bi la ñuy jàng te yow dangay ngay débure sa ijji fero ijji saar yi nga mokkal dëgërut say doom jàngal leen téere yàlla bi ne leen kaa taxaw julli waaye bu ñu nax sunu bopp waay nit du nax boppam ba noppi dëkkee bakko jullit la ku ne la doo julli du mer léeg-léeg sax nga boole ci ne man taalibi tiyaan la wala taalibi murit la màggal yaa fay jiitu gàmm yaafay jiitu appel bi bu jotee yoof yaa fay jiitu te yow ba léegi feragoo iji say doom feruñu ko lu tax dem tubaak caawan lan moo tax ñu am bu ñu wootee ñu wuy si leen téere bi la Serigne Touba téere bee ko fal Cheikh Al Hadj Malick téere bee ko fal maam Ablaye ca Kaolack téere bee ko fal maam ca euh, maam Bou ca Ndiassane téere bee ko fal alquran maanaam ki nga ne mooy sama sëriñ di ko top li tax mu doon sa sëriñ téere be li tax mu doon sa sëriñ téere be yow mi ne mooy sa sëriñ doo jàng tere bi doo ko jàngal sa njaboot alxuraan wàccuñ ko rek pour ñu def ko wàccewuñ ko pour ñu def ko ay meuble rangele ko ci sunuy bibliothèque di ko barkeloo barkeeloo déedéet inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yahdi lillati hiya wam téere bi day defar nit léegi nga nar a continuer daal téere bi nga koy umpale yamoo nga dem ba am njaboot sa njaboot nara continuer di ko umpale erreur ci kaw erreur ci kaw erreur erreur bi way jur defoon ba am ngant lu te jàngalu la téere bi yow it nga def même erreur bi jàngaloo ko say doom say doom ami doom nga ami sët sët bi jànguñu téere bi da gis koo xam ne jàngalul doomam alquran doomam dem ba màgg ami doom bëgg leen jàngal alquran mu opposé am na maam yoo xam ne tey dañ ne seen sët du dem daara lu tax dañ ne seen yaay wala seen papa yóbbuwuma la woon daara lu tax nga leen di yóbbu daara <laughs> ey ey ndaw bàkkaar bu rëy dama bëgg sama doom ji xam yi yàlla ku ne la du dem xam yi yàlla ëllëg moog yàlla te léegi loolu mooy am de dama bëgg a yóbbu sama doom ca daara ñu taxaw ne la bul ko yóbbu ca daara waaye ku ci am bopp ku ci liy nelaw ci yow yeewu da yëg ne rek ka koy tere amul bopp lay nelaw ci moom yeewoogul da nga koy ñaanal yàlla ba yàlla yee lay nelaw ci moom te nga jël sa doom yóbbu leen ca daara ja ñu xamal leen yàlla Mhm. ku yàlla ñulugul yenn nii doo ko mën a muñ bànneexu gis doom chaque jour doom bañ a tumranke bañ a xiif bañ a mar bañ a rafle bañ a nàngam bànneex boobu léeg-léeg am na koo xam ne moom la mante muñ moo tax mënu la yóbbu doom ja ca daara ja d'accord am na koo xam ne moom dëgëram ak nivoom ci yàlla yeggagul mu mën a gedd doom yi ab diir pour ñu defari leen ca daara ja delloo si waat ko ci loxoom niveau am daal fi mu toll mooy doom yi nañuy jàng di wàcc baax na nañ jàng di wàcc am na niveau fi mu toll mooy doom yi na am ku leen di jàngal si ci biir kër gi muy sartonte kooku weer wu dee mu koy jox paasam ba tey na nekk maanaam li ñaan tous les moyens sont bons waaw l'essentiel mooy objectif bi mooy mën a lire téere bi ak méthode jumtukaay boo mën a jëfandikoo méthode boo mën a ngir sa njaboot mën a liir téere bi utiliser ko baax na waaye bàkkaar bu rëy bi daal mooy am fukki doom te kenn feru ci laa ilaha illa allah da nga gis borom kër gu tëdd ci digg këram ci piliyaanam jaaxaan ne alhamdulillah mel ne dañ ko posé question ci xolam ne ko lu tax ngay sant yàlla mu ne sama doom yëpp réussir nanu ñu ne ko ah bon mu ne waaw xoolal taaw bi médecin la ñaareelu doom ji procureur la ñetteelu doom ji avocat la ñeenteelu doom ji professeur la juróomeelu doom ji euh, directeur général la juróom benneelu doom ji euh, avocat usuier la <laughs> juróom ñaareelu doom ji euh, juriste la waaw ba mu jeex rek ba fukki doom yi jeex mu ne loolu la sant yàlla ndax ñëpp réussir nañu nga dellu introsé taaw bi ferul ijji ñaareelu doom ji ferul ijji ñetteel bi ferul ijji ñeenteel bi ferul ijji juróomeel bi ferul ijji maanaam ki ci procureur mënul liir Fatiha directeur général bi mënul lire Fatiha nga xëy yow borom kër googu faatu ndeysaan ñu dem wooyi ñu dem wooyi sëriñ Habib Sarr ca Kaolack ne ko kaay jàngal ko kaamil sëñ Habib Sarr ànd ak i ndongoom ñëw di jàng si kaamil bi procureur ñëw toog avocat ba ñëw toog directeur ba ñëw toog ku nekk jël sa tànk tegale yor kurus di tocc toccal kenn mënu cee jël jukki ndeysaan lu daw yaram la lu daw yaram la lu daw yaram la tey borom kër yu bari buñ génne àdduna buñ leen di jàngal kaamil seen benn doom mënul jël jukki ca kaamil ba ak a raglu ak a raglu ak a daw yaram ak te amoo loo mën lay ëllëg ci kanamu yàlla ne moote nga jàngal doom yooyu ay millions yi millions yi millions nga génne ngir sa doom yi doon ay juge ki procureur ki nangam ki nangam ki nangam ki te kenn felu ci ci mbaa man nga liir téere bi yaag say doom mbaa man nga liir téere bi yaag say doom moo tax borom risaala ibnu abi zeydin al qayrawaani ci téereem bu am solo bi ca njël benn ga daf ne waalam anna xayra al qulubi awaaha lil xayr wa arja al qulubi lil xayri ma lam yasbiqi charru ilayh def ne waalam na nga xam-xam gu bir ne anna xayral qulubi naka xol bi gën ci xol yi aw aaha mooy xol ba ca gën a fees gën caa wat gën caa takk gën caa denc lil xayri ñeel mbaax ci thème bi firee ko alquran xol bi gën ci xol yi mooy xol bi ëpp lu mu duy ci alquranul karim ki nga xam ne nii këram këram li ëpp lim ci chargé mooy alquran kër boobu moo gën ci kër yi xol booboo gën ci xol yi te wa arjal qulubi gën jaa yaakaari xol lil xayri ñeel alquran ak mbaax joo googu maa mooy xol boo xam ne lam yasbiqi charru ilayhi lu bon jiituwu ca xale bi balaa dara di jiitu ci xol bi alquran jiitu ci xol boobu moo gën ci xol yi moom lañ gën a yaakaar ne mooy gën ci xol yi maanaam xol bi gën ci xol yi mooy xol bi ci sol mbaax sol alquranul karim waaye xol bi ñu gën a yaakaar pour mu mën a sol mbaax googu noonu le mooy xol bi nga xam ne dara jiitoogu ci maanaam xale bi nga xam ne nii dara nekkagul ci moom jàngagul dara nga yóbbu ko mu jàngi alquranul karim akay xolu xale booboo gën xolu xale beneen budul moom bu ñu deful ci moom lu mel ne li ñu def ci moom wa awlaa maa uniya bihi naasi naasixuun wa raxiba fi ajrihi raaxibuun isaalul xayri ila qulubi awlaadi almuminin li yarsaxa fiha wa awlaama gën jaa yey ca la nga xam ne uniya bi naasixuun ñii sonn tey laaye biire ñi ngi koy sonne nekk ca di ca dar-dari aka dang-dangi wa raxiba ta xemem te bëgg fi ajrihi ci yoolam a raxibuuna way xemem yi loolu lu mu mu ne isaalul xayri fexee jotal mbaax isaalul xayri fexee jotal alquran ila qulubi awlaadil muminina mu jëm ci xolu doomu way gëm yàlla yi li yar saxa fiiha ngir mu mën a sax ca xol ba ñii sonn ñii dang-dangi li mata gën sonne ak mata gën a jara dang-dange mooy fexe ba jullit ñi seen doom jullit ñi seen doom yi téere yàlla bi jiitu ci seen xol yi ngir mu man ca installé wu wala fay wax xol lu ca njëkk tëcc xol lu ca njëkk tëcc xol lu ca njëkk tëcc aka am solo xol bi téere yàlla bi jiitu ci waaye sa doom fera feragul ci soow nga yóbbu ko garderie d'enfant laa ilaha illa lan lañ koy jàpp jàngal taj taj taj tëbal feccal caapaa ñaamaa pisini ni ko subhaanallah xale bi ndab lu set wecc ñu raxas ko ba mu set defagul dara nga yóbbul ko nit ñu ci def tàccu ak fecc ak i woy ndax bàyyi nga xel loolu kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na xale bu judd bu nekk biñ lay indi ci àdduna dara taqu la da set wecc dara taqu la ndab lu deful dara nga set wecc nee na nag say ñoo lay orienté def la nga nekk yahud wala ñu def la nga nekk nasaraan wala ñu def la nga nekk ab ate am majuus say wayjur waaw ku juddu ku nekk jullit bu set wecc nga bu takkul dara fooy buñ bindagul dara ndab lu defagul dara say wayjur nag ñooy def ca ndab la lu salte wala boog ñu continuer rek di ca def lu set te ndabul xolu doomu jullit bi li ci war a jiitu mooy téere yàlla bi moo ci war a jiitu waaye xale bu am ñaari at genn wàll nga jël ko jëndal ko bidon mu wéeg ko saak solal koy bot muy cukki-cukki fan la daw jëm garderie d'enfants bu demee ñu koy jàngal tëb fecci yéeg wàcci ba wàcci jot ñu delloo si la ko mu nekk ci loolu un an et demi deux ans quatre ans léegi mat nañu tàmbali nag léegi formé maanaam sol nañu ci ndab li benn fondement maanaam euh, li ci suufu ndab li def nañ ci lu salte mooy fecci wëy ay tàccu tëb yéeg wàcci après nag ñu jël téere tubaab bi nag teg ko ca te doomu jullit la de di yokk niveau bi muy yéeg subhaanallah subhaanallah ay mhm. li yarsaxa fiihaa ngir mu mën a sax ca xol ya ak ñu jéem leen a ci xamal leen seen diine ak li charia rëdd fan la yem xale yi dañ leen war a tàggat ci jàngal leen alquranul karim yamu ca de mais ñu jàngal leen seen diine sa doom doyu rek nga jàngal ko alquran mu mokkal ko nga naan sama doom internat la nekkoon mokkal na alquran nijaayam ju ñëw nga ne ko taril ko mu taxaw tajwid abdul basit wala mu jëlal la ñu naan macha allah doyul de wa tanbihihim ala maalimi diyanati wa hududi shariati ok sa doom bu jàngee alquran ba noppi da koy yee ci mu xam li yàlla wax jàng alquran keese doyul ci ab jullit mais dafa war a xam nan la ñuy julli aka bari yuñ ci war a xam julli am na lu ñuy tuddee farat am na lu ñuy tuddee sunna am na lu ñuy tuddee ngëneel am na lu ñuy tuddee lu ñu sib am na lu ñuy tuddee lu yàq julli am na lu ñuy tuddee ay sart li yëpp ci julli la julli amati ay waxtu bu la waxtu bi rawee noo koy fayee soo julliwul tisbaar ba saan jot nooy def soo julliwul tàkkusaan ba timis jot nooy def su la juróomi waxtu rawee yoo julleegul nan nga war a fayee loolu dañ koy jàng soo doon jullee am ñaari raaka toog waroon a taxaw wala nga taxaw te waroon a toog nan ngay def dangay ngay toogaat wala da ngay continuer bu dee da nga continuer nooy fay nooy defaree julli gi bu dee da nga toogaat nooy defaree julli gi loolu dañ koy jàng ala maalimi diyaanat soo paree ci julli weeru koor dafa am i farata am sunna am i nganeel am yu ñu sopp am luy yàq koor gi loolu lu ci nekk téere yi dañ koy jàngale topp nga topp azaka naka lañ koy génnee asakay xar asakay bëy asakay nag asakay gëlem asaka xaalis asakay or loolu yëpp ci ci maalimi diyaanaat yi la bokk du ñëpp lañ sas yenn yooyu noonu la ci xam-xam pour ñëpp war ko xam mais am na ci yennati yoo xam ne nii moom da ko war a xam fondement la ci jullit bu nekk lu aju ci njàpp lu aju ci tiim lu aju ci sangu farata lu ci nekk ci ci maalimi diyaanaat yi la bokk nga war ko jàng war ko xam hmm? bu paree ñu jàngal la lan mooy lu xaraam nga xam li xaraam xam li dagan xam li ñu sib xam li ñu sob xam li war loolu dañ koy jàng ci ngay xamee li yàlla bëgg ak li mu tere mooy xuduudu sharia yi muy wax sharia lii la la may fii la yem lii boo ko defee yiw la lii boo ko defee bàkkaar la bàkkaar bi da koy tuub boo ko tuubee nii nga koy tuubee soo ko tuubee nii yàlla jéggal la ko dootoo ko defati bàkkaar bii kat moytu moytu koo def ndax boo ko faatuwaale yàlla du la ko jéggal loolu yëpp dañ la koy jàngal mu ne ñu jàngal la li war nga fas ko ci diine ci sa xol xam yàlla li yàlla ci moom jàngal la tawxiid naka ngay wéetale yàlla loolu xale bi dañ ko koy jàngal xam ne yàlla kenn la du ñaar du ñett amul yaay amul baay jurul kenn kenn juru ko amuli doom yàlla amul fu mu tàmbale yàlla amul fu mu yem yàlla nekkul jëmm ju ñuy gis naan loxo baa nga nele tànk baa nga ne bopp baa nga ne loolu du yàlla laysa ka mislihi shay'un laysa ka mithlihi shay'un dara melut ne moom ñu jàngal la melokaan yi war ci yàlla nga xam ko xam na yàlla kuy dund la kuy dégg la kuy wax la kuy gis la nekkul jëmm ji dox di dem ak ñëw nekkul kuy toog ak a taxaw yooyu yëpp li sa xol war a fas lay dugg ñu pare jàngal la malaaka yi ñooy ñan nu leen yàlla bindee ci leer du ñu lekk du ñu naan du ñu nelaw du ñu mën a mooy yàlla ñu jàngal la yenant yi nga xam li war ci yenant yi ak li jomb ci ñoom waaw lu ci nekk dañ la koy jàngal pour nga mën ko xam pare jàngal la téere yi wàcc ci asamaan nga xam ñaata téere la téere yi nan lañ ko séddale ba yegg ba yegg si ci alquran lay xew gannaaw dee ñu jàngal la ko nga xam ne dee ni mu amee dekki noonu la amee bàmmeel am na lu fay xew yomal qiyaam bis buy dikk la ñu jàngal la ajjana ak safara jàngal la siraat ak peese ga peese jëf ya lii yëpp dañ koy sol ci xol nit ki fas ko balaa nga mesure fekk lii nii moom fondement la bu dëgër boo yor après nag leneen loo xam mu nekk bonus waaw ci la demee ba ne solo nañ ñu jëlee ci nettali ñu ne jàngal anna taalima sigaari li kitaabillahi yudfiu ghadaballahi wa anna taalima cheyi fi sigari ka naqshi fi lxajari jàngal ndaw ñi téere yàlla bi dafa fay merum yàlla mhm. jàngal ndaw ñi téere yàlla bi dafay fay merum yàlla waaw lii yëpp da nga ko xam yow wayjur nga nar a continuer rek ci réere sa diine sa doom yi tamit nga nar a bàyyi ñu continuer ci réere seen diine te seen mbirum àdduna yëpp ñu xam ku ci nekk yaa ngi jënd ay livres ya gën a cher di fayal say doom baleen di fayal ay professeurs yu ñëw ci kër gi di leen jox ay cours renforcement la ilaha illallah cours de renforcement te uto ustaas buy ñëw di leen renforcer ay cours alquran waaye sa doom yaa ngi koy fayal ca privé ba doyul ngay fayaati professeur ñuy ñëw ci sa biir kër di leen renforcer mathématique histoire géographie nangam nangam cours de renforcement nga koy fay lépp rek mooy xale bi gaawal am niveau gaawal jàng gaawal am diplôme mooy tax nga tekki le mot de tekki <laughs> ndeysaan le mot de tekki moor hmm. <laughs> <laughs> moor war nañoo xoolaat la mooda tekki lan mooy tekki ah lan mooy tekki ñu bari tekki mooy tekki mooy am xëyis de sama mbokk bawol bawol naan am xëyis am xëyis yàlla na ko yàlla yërëm alxaaji fàllu siise moo daan wax ne bu fekkee tekki mooy am xaalis sàcc bi toj toj banque sàcc bi dem toj banque bi bàyyi ba ñëpp tëdd mu dem defi pexe ba toj banque bi sàcc fa ay million mu ne kon sàcc boobu tekki na mu ne waaye tekkee dee tax mu def ko mooy wane ne tekkiwut kon ku yari million bu fekkee mooy tekki kon sàcc bi bi sàcc ba ami million moom itamit tekki na te kooku tekkee dee tax mu sàcc ci lañuy waxtaan ci suñu waxtaan yooyu ñu daan jollo sant ndeysaan ba mu ne ko man daal bu may définir moowu tekki sëñ fallu jub laa koy définir jub ku jub rek tekki nga mu mu fekk si ma ci ne nangu na waaw ku jub tekki na ku am doom ju jub rekk tekki na leneen li nag matière la rekk yàlla mën na koo joxe mën na koo xañe waaye ku fexe ba doo lekk alal ju lewul kenn gënu laa tekki ku fexe ba doo wuruj doo tappale doo njuuj njaaj kenn gënu laa tekki kuñ defar ba nga mel nuunu koo koy ku tekki tekki dëgg jikko la nit ki jikkoom mooy defaru mu doon nit ku tekki mais ñaata immeuble ñoo fi nekk ki ko tabax ab sàcc la de tournement deniers publics yu bari yooyu dégg enquêtes yi bu continuer ay milliards yu ñuy tudd aw nit sàcc ko ay immeuble lañ tabax maye ci million ki terrain ki lu ne ndax ñooñu tekki nañu ne ma tekki nañ tekkee di ndeysaan tey ba tax na defaral sa doom bam xam yàlla soo ko defee rek mu tekki soo ko defee rek am nga doom ju tekki sunu borom nee na yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla fexe leen ba fegal seen bopp ak seen njaboor safara imam aliyun karamallahu wajhahu ñu ne ko naka la ñuy fegalee sunu njaboot safara mu ne mooy ngeen yar leen jàngal leen addibuhum wa allimuhum soo yaree sa doom jàngal ko alquran fexe nga ba muccal ko ci safara sa doom jooju réussir na <laughs> ko am doom joo xam ne fexe nga ba mucc ci safara doom jooju réussir na yow tamit Eh, am nga ay doom yu tekki am nga doom yu tekki waaye doom yoo xam ne nii lang leen jàngal dara ragal yàlla dugg ca nga dem bàyyi leen fi ñuy toje di teg alal juñ leen dénk ñu def ci njubadi waaw léegi loolu nu mu tudd kenn xamul sa njaboot googu fegaloo leen ci safara yaral sa njaboot jàngal ko téere yàlla bi xamal ko boromam su boobaa nag yow sa doom yooyu tekki nañu maanaam sa jaan wàcc na ci say doom ku ca def nag naka sudul noonu après yow ëllëg ca kanamu yàlla bu yàlla ne waqifuhumu innahum mas'uluun wal ma parents yële ma laaj leen seen doom yi lii ñu nekkee woon da mën a taxaw ci kanamu yàlla ne ko ah yàlla kat ñoom lañ doon def kat can ma ca de ndax man la ma waroon ci ñoom def naa ko jur naa leen fa ma leen war a juree yar leen fa ma leen war a yaree jàngal leen la ma leen war a jàngal wa jàngal naa leen ñu xam yow li nga bëgg li nga tere ñoom kay ñoo topp seen bànneexu bakkan def lu leen soob su boobaa yàlla na demal léegi nag mu lijjanteeg say doom waaye yàlla woo doom yi ñu ñëw ne wool suñu papa ñu woo père mu ñëw taxaw wool mère mu ñëw taxaw ñu taxaw ci kanamu yàlla ne yàlla ne waaw yow sa doom yi ndax xamaloon nga leen may kan nga wokk ndong du fa jëriñ de. Mhm. lu fa jëriñ imaamu suyuti daf ne taalimu sibyaani aslun min usuli lislaam fa yansha'uuna ala alfitrati wa yasbiqu ila qulubihim anwaaru alxikmati qabla tamakkuni alahwaai minha wa sawaadiha bi akdaari almasiyati waddalaal ca attaratibu lidaariya ñaareelu xaaj ba xëtum téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett daf na jàngal ndaw ñi jàngal xale yi ñu xam yàlla xam téeréem bi mu ne cosaan la ci cosaanu lislaam yi loolu mooy tax xale yi mën a continuer di conserver mbaax giñ judduwaale ñu jàngal leen alquran mooy alimenter continuer di nettoyer setuk xol biñ judduwaale xale bi dafa judduwaaleeg sincérité dëgg njub leer la judduwaale léegi nag xale bi bi mu juddoo mbaax googu nekk ci xolam set googu mu indaale imaamu suyuti nee na li koy alimenté mooy nga continuer jàngal ko yàlla jàngal ko li yàlla bëgg jàngal ko téeréem bi mooy continuer di conserver ak di yokk mbaax googu nga xam ne moom la xale bi judduwaale luko ko mooy xale bi dafay ñëw indaale mbaax nga koy jàngal loo xam ne dafay fay mbaax googu noonu li mhm. walaysa kullu ilmin nafaan zahtiwa walaysa kullul ulamai fi stiwa sëñ Bàmba wax ci masaalikul jinaan dane du xam-xam bu nekk am njëriñ du borom xam-xam yëpp a yam fa fil ulumi maa yuqassi qalba wa yujibul kibra wa yunsi rabba nee na am na ci xam-xam yi xam boo xam ne dafay wowal xol di fàttaloo yàlla di waral nit ki rëy ca qultu laqad xarra waaw dane man ba man sëñ Bamba maane Iblis nax na nit ñëpp ba bàyyi loo leen fi alquran ñuy jàngi tubaab te nee na ëllëg bu ñu duggee ci biir bàmmeel njàngum tubaab mi du leen fa jëriñ dara waaw bi almi maa laa yanfau fi lqabri walxasri wa maa laa yudfau anhum azaba rabbihim yowma aljawa wanhamaku fi lgaflaati walhawa sëriñ Tuubaa nee na njàngum tubaab boo duggee bàmmeel du la fa jëriñ dara soo dekkee ci bàmmeel du la fa jëriñ dara suñuy euh, dund njàqare ca yowmal qiyaam ñëpp tiit ñëpp jàq dara du la ko jëriñ nee na daal bànneexu àdduna kese kese moo yóbbee nit ñi ñu wan gannaaw téere yàlla bi di jàng téere tubaab yi wax jooju la topp ba yegg ci du xam-xam yëpp am njëriñ du borom xam-xam yëpp yam am na ci xam-xam yi xam-xam yi xol waaw njàngum tubaab mu yàlla lalut fekkul alquran nekk ca xol ba leeru diine nekkul ca xol ba xol bu wow lay jural nit ak rëy ak fàtteloo la yàlla tey yu bon yi ci ay loi àdduna yépp jànkadu tubaab yi ragalut yàlla ñoo ko voté ci ay loi waaw buy may jigéen muy gàncatu jox ko kart mu mën taxaw ne valable na pour mu njaaloo ñan ñoo ko jàngale ñan ñoo voté loi yooyu noonu le jànkat tubaab yu ragalut yàlla jànkat tubaab yi ragalut yàlla tey bu ñu ne ku ray nañ la ray yàlla moo ko ñu ne nañ ñu dimbale ñan ñoo naan nañ ñu dimbale jànkat tubaab yi ragalul yàlla tey bu ñu ne nañu delloose si charia ñu attewoo téere yàlla bi jànkat tubaab yi ragalul yàlla ñooy njëkk a jug takk rajo yi ne bu mu fi amee lu bon lu nekk bu ñu jugee taxaw ne bumu fi am jàngkatu tubaab yi ragalul yàlla ñooy taxaw naan dimbale leen nu ñu ragalul yàlla waaw jàngat tubaab bu ci mer rek yaa ngi bokk ci ñi ragalut yàlla li ma wax lu leer la jàngkat tubaab yi ragalut yàlla danga wax léeg-léeg benn wax am ku ne waaw dañoo yaakaar ne ñoom ñoo gën ñëpp wala lii la waaw day fekk yow nga bokk ci ñooñu rek subhaanallah subhaanallah lu lu lu lu lu lu doy waar la xol yi nga xam ne ndeysaan yàlla da leen di derange yàlla da leen di derange ah laa xarwa su fekkee xol bi yii ñuy wax ni jiituwu ci yàlla alimenté wu ko su boobaa bu ñu tuddee yàlla rek mu déranger ko moo tax suyooti nee na ñu góorgóorlu def ci ñoom diine ngir mbaax gënu judduwaale man di yokk leeru yàlla googu jiitu ci seen xol balaa caa bànneex di tàbbi ak bakkan ak ñuul ñuulu mooy yàlla yi di tàbbi ci seen xol fekk leeru yàlla googu ma nga ca menn mbokkum daara mooy faral di wax ne ku jugee koo daara maanaam ku jàng alxuraan ak la bëgg a wax boo ubbee buntu mbonit doo ko tëj Mm-hmm. soo ubbee buntu mbon doo ko tëj man nga tàmbali di am yooy def ci yëfu gone waaye yàgg-yàgg leer gi nekk ci xol bi <laughs> dafay bañ da lay dëpp waaw leer gi dana xeex ak yow ba dëpp la moo dafa am solo leeru alquran jiitu ci xol yi kon yow way jur wi yow way jur wi ma delloo si waa tem bi mbaa mën nga liir téere bi yaag sa njaboot mhm, mooy départ bi mën ko liir mooy départ bi nga mën ko liir mën koy jàng ok léegi nag nga yegg ci état bu nag di ko jëfe loolu beneen niveau la waaye jëm mi mën liir gi sonn ci liir gi rek tuyaaba la sonn ci rek pour mën ko liir rek tuyaaba la nga man ko liir di liir rek tuyaaba la xaraf bu nekk dañ la ciy bindal tuyaaba xaraf bu nekk dañ la ciy bindal tuyaaba effort bi ngay dañ ngir sonn pour man ko jàng dañ lay bindal tuyaabay effort bi maanaam coono gi ak jéem a jàng gi ñaari tuyaaba yooyu yëpp da nga koy boole téere boo xam ne boo ko jàngee bismillahi boo ne bismi ñu bindal la trente tuyaaba bismi rek baa trente nga am trente tuyaaba xaraf bu nekk ñu bindal la dix tuyaaba alxuraan di euh, subhanallah hmm? nañu góorgóorlu ci man téere bi waaye bul yem ci man ko rek de mais dee ko jàng nag am na tooke yu ne ci yaram yoo xam ne mbokk yi dara du ko génne lu dul jàng alxuraan ak am solo dee ko jàng dafay chargé xol dafay setal xol day xëcc nit ki jëme ko ci yàlla da lay bëggloo jaamu yàlla da lay dindi ci yow tayal ci jaamu yàlla day lay bëggloo lu baax da lay bañ loolu bon am na ay rayon wu seytaane rayon wu seytaane yuy sànnee ko ci xol dara mënu koo détecté dindi ko lu dul julli ci yenent bi ak jàng alquran dara mënu ko rawatina jamono jii ñu toll nga xam ne nitu iblis yi lu ne lañ ñuy def ci seen yëfu iblis yooyu noonu la lu ne lañ ci def ci seen yëfu iblis yooyu noonu waaw yu bon yu nekk dañ koy def yooyu di def njeexit ci yaramu doomu aadama yi di def njeexit ci xolu doomu aadama yi am na ci lool dara gënu ci ay di jàng alquran ak di julle ci yenent bi sallallahu alayhi kon gis nga ngëneelu jàng gi maanaam biñ na la mbaa mën nga koo liir mbaa say doom mën nañ koo liir léegi nag après ngay ngay xam nag solo si mooy boo demee ba man ko di ko jàng ci ngay yëg nag li ngay jàng solo si mu am ci yow di ko def ci yow di ko def ci sa xol di ko def ci sa njaboot waaw lu am solo la mhm. lu am solo la yenent bi sallallahu alayhi wa wax na ci ngëneel lu nekk bokk na ci boo xam ne war na tax waajur wu nekk fexe man alquranul karim man man loo ko njabootam mooy lim wax ne man allama ayatan min kitaabillahi kaana lahu thawaabuha ma tulliyat képp ku fexe ba nit man benn aayee alquran yool bi dañ la koy bindal fekk ko mën a nga koy jàng yow mi sabab mi ko jàng tamit même yool bi lañ lay bindal yow mi fexe ba sa doom man benn aaya waxuma mu man six mille quelque aay alquran yi de mais benn aaya aaya boobu heure bu ko jàngee yow mi fayaloon sa doom wala nga yóbbu woon ko ca daara ja ñu manal ko aaye boobu noonu le sëñ daara ba ko ko manal yow woy jur wa xale ba ñooy bokk même bonus bi buñ ko bindalee fukk bindal la fukk bindal ko sëñ daara bi buñ ko bindalee ñaar fukk bindal la ñaar fukk bindal ko sëñ daara bi feeg mi ngi koy jàng nag heure bu ko jàngee rek ñu versel la lu toll noonu xoolal pourcentage bu rëy boobu da nga ko mën a jëlee ci jàng français wala anglais wala espagnol wala chinois mun na ko jee jële jëlal téere Karl Marx yeeg ñu jiitu woon Karl Marx Suqraat ak ñëpp nga jàng seen téere téere yi dix mille fois benn tuyaaba duñ la ko ci bindal <laughs> nga jàng téere téere borom bi bind ñoom Suqraat ak Karl Marx benn xaraf ñu defal la ko junni tuyaaba laa ilaha illa allah waaye lii mata sonne waay lii rekk jàng téere bi di ko jàng day far bàkkaar téere bi di ko jàng day yéege ay maqaam tere bi di ko jàng dafay sarge ay leer ci xol allahu akbar yow jur wi jàng alquran jàngal ko say doom yàlla versel la ay millions yi tiyaaba ci sa compte nga faatu bàyyi fi doom yooyu jàng alquran ñu koy jàng ñu lay versel ay milliards yi tuyaaba ci say compte lii ndax mën nga ko amee ci sa doom ji nga xam ne jàngal nga ko tubaab mu am ay diplôme am liggéey tabaxal la kër jëndal la oto yóbbu la màkka defal la ci teraanga yi ngay gis ci àdduna bi nga faatoo lan moo la cay topp xanaa tuyaabay xëy na bu la yóbbu woon màkka yàlla na alal jalew <laughs> tuyaaba jooju mën na la topp waa léegi après bi nga faatoo lan moo la ciy topp man hmm, naa poser question sa doom ji nga wax ne dafa tekki tey euh, benn comptable la ci benn société <laughs> nangam nangam la banquier la nangam nangam d'accord jàngaloo kon alxuraan léegi après bi mu ko doonee léegi yow ban tuyaaba moo fekk ci comptabilité bi muy def ci société ba luñ la ciy bindal ne tuyaaba yow way jur wi luñ la ciy bindal te yenent bi ne aw waladun saalihun yad'u la nit ki bu faatoo bu weesoo la nga jëf ñaar yala ciy jëriñ gannaaw boo faatoo yoo jëfal sa bopp bi ngay dund sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafa'u bi sarax boo saraxe woon xam-xam boo jàngale woon ñu koy jëriñoo sa ginnaaw wala doom ju baax doom ju baax ndax yow mën nga jàpp ne am nga doom ju baax te jàngaloo ko alquran xolal bula kenn nax bu la kenn nax kenn nax say doom ah, defal ci ñoom téere yàlla bi bula kenn nax de lu coow li bari bari fii la ku faatu noppi ku faatu miig ngay def doo wax te kuy dekki yow don yaay yanu sa ëmb kenn du la ko yanule wuy ji yàlla wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda mooy la ma la waxoon ca jamonoy màggal ga ci julli ne la bu la kenn nax bu la kenn nax loolu laa waxaat tamit tey ci téere bi bu la kenn nax téere bi yërmande yàlla la ju mu wàccee ngir nun ñëpp ñu am yërmandeem jooju mhm. du lu ndaw de lu réy la dem na ba yeneen bi sallallahu alayhi wa wax ci benn xadis bu gudd bay jeexal xadis ba wax ne ki jàng alquran ñaari way juram danañ leen solal ay yére yére yu rafet seen bopp yi ñu tegal leen ci benn ndëpp ndëpp ba maanaam benn mbaxana mbaxana wurus boo xam ne kiñ koy tegal ci boppam mooy ki jàngoon alxuraan way mi ñu solo leen ay yére yu rafet yére yoo xam ne sallallahu alayhi wa na buñ ko indi woon fii ci àdduna di ko jaay kenn amul njëgam ndax rafetaay bi way jur ya daal di poser question sunu borom ne ko lii nga nu solal nii lan moo ko may ndax ñoom xam nañ ne du julli moo leen ko may du woor weeru koora leen ko may du génne azaka moo leen ko may du dem màkkaa leen ko may du daraa leen ko may moo tax il faut ñu poser question yàlla ne ko lii lan moo na ko may sunu borom lan la leen di tontu mooy bi axdi waladikum alquran seen doom ji jàngoon alquran ci àdduna la leen yàlla faye nii tey di leen décorer yére yu rafet yi waaye waxul bi aqdi waladikuma faransa aw espagnol aw anglais aw chinois un un alqur'aan sa doom ji nga jàngaloon alqur'aan moom la la yàlla di fayee yére yu rafet yii mu la soloon ci la ñuy wax nag sa doom jaka jàngoon alqur'aan naan ko yéegal ngay jàng alqur'aan mu yéeg di jàng alqur'aan ca biir aljana allahu akbar gis nga àjjana ñi gënoon a mokkal alqur'aan ñooy gën a kawe immeuble biir àjjana <laughs> ku nekk dañ ñaan la foo yemoon sa mokal rek fa la sa immeuble di yem ci ngay yéeg immeuble yi di yéeg ñu naan la jàngal nga tàmbalee bismillahi rahmani rahim fatiha bi jeex ñu def premier niveau bi ñu yéegal baqara alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladina yuminuuna bilgaybi ñu naan la yéegal yéegal jàngal ta nga yéeg iqra wa saad la malaaka yi di wax jàngal ta yéeg ngay jàng di yéeg jàng di yéeg jàng di yéeg foo yam rek fa la sa immeuble di yam bu kaamil bi jeexee nag yaay tiim ñëpp laa ilaha illa allah moo kaamil bi moom it beneen affaire la jëfe gi mbir la waaye mokkal gi tamit mbir la su ko defee kon mbokk yi mu mel ne waxtu wi jeex na loolu daal moo doon waxtaan wi tey mooy fàttali leen fàttali sunu bopp ku ci mënutoon alquran fexe ko man waaye li may jeexale mooy yéen ñi ko man ba noppi ngal la waay de leen jàng alquran ma dugal ci sama bopp na ñuy jàng alquran yor naa ci benn téere mu ne bu fekkoon yàlla dafa ruus mu ne yàlla bu doon nit la koy ruus bokk na ci li koy rusloo maanaam ku yaakaaram di tas bu doon nit la ku yaakaaram di tas bokk na ci li tas yaakaaram ku jàng lu jege lu mat téeméeri aaye alxuraan xëy suba ba ngoon te jàngoo ko nee na kooku yàlla bu fekkoon ku yaakaaram di tas la kon tas nga yaakaaru yàlla ndax mi ngi naan sama jàmbi de mën na sama téere bi tey maa ngi xaar mu jàngal ma sama téere bi muy xaar suba ba ngoon jàngaloo ko ko te tey bari nañu mokkal alquranul karim bañ ko mokkalee lañ ko upp julli daal moo leen di booleek alquran julli ëpp naa def maa ngi sama bopp di la dénk deel am jukki boo warlu sa digganteek sa borom di ko jàng foo tollu ana al leyli wa atrafa an nahar del jàng téere bi ma waxaat ko am na tooke yu ne ci yaram yoo xam ne nii benn turu yàlla doo ko zikar bam dëñ lu dul jàng alquranul karim am na leer yoo xam ne nii benn turu yàlla mënula koo may lu dul jàng alquranul karim mhm. te Euh, nit mën na jëfandikoo tur yàlla ba yëg ne lam ko doon chargé ci xolam chargé tu ko ko muy yokk lim bam ca daan def ba mu des alquran alquran dooley charge bi charge bi ni muy chargé xol doole ji du ma sa faible du ma sa faible boo ko jàngee rek mu def ci yow loo xam ne nii ba nga ko jàngagul nekkutoon ci yow waaw kii am na nag ku ko mën da yëg ak koo xam ne nii mën agu koo yëg il faut nga dem ba yegg ci foo xam ne sa xol bi mi ngi tàmbali di yëg ferñeent yi muy sànni ci sa xol akay nga soog di yëg ne nag boo koy jàng am na lu muy def ci yow yoo xam ne boo ko jàngagul defu ko woon ci yow ñetti yàlla yi ci lañ ñu demee ba yegg foo xam ne mënatuñoo zikkar du alxuraan ñoom seen dog alxuraan la ci la ñuy bàyyi yu baree baree baree bare yu ñu daan zikar nekk ci alxuraan waaye ay mbir la nag yoo xam ne ni yu xaw a jaxasoo la ci wàllu yàlla côté boobu ndax ku nekk ak xolam ak tolluwaay ba mhm. am na kook mën na koy jàng guddeeg bëccëg du diis ci moom am na ko am na nii bu ci amee yenn xisi bi mu diis ci xolam ça dépend te wàllu yàlla léeg-léeg soxla ku la ciy gide comme ni nga xamee ne nii booy jëfandikoo ay garab pharmacie bi da nga soxla médecin bu la ciy guider aha dafay am loolu leneen la yàlla ñu yàlla dooli sutura kon daal maa ngi invité waat way jur yëpp nañ fexee man téere bi man loo ko seen njaboot bul bañ ba sa doom nga jël ko yóbbu ko ca daara ja ñu jàngal ko alxuraan nga muñ bànneexu gis doom bi tëli koog doom te xam ne la ngay jëlee ci tuyaaba ak fayuk sun borom ak defaruk doom jooju ci daara ja ci jàngal ko téere yàlla bi wallahi bànneex ba ngay am ci gis sa doom bis bu nekk euh, dara jarul jëndee ñaar yooyu noonu le wala bànneex boobu noonu le yiw woowu dara jaru ko dara jaru ko dara jaru ko su fekkee sa xol yeggul ci mën a jël sa doom ja yóbbu ca daara ja yaay seet yaay seet fexeel méthode boo mënti utilise utiliser ko l'essentiel sa doom fexeel mu man téere yàlla bi xisa bi may tëjee nga xam ne jar na ku nekk jàngal sa doom alquran mam borom tuubaa dafay nettali ci masaalikul jinaan ba yegg ci di wax ngëneelu alquran ba ne boo jàngalee sa doom bismillahi rahmaani rahim bu demee ci daara ji ñu jàngal ko bismillahi rahmaani rahim mu ne sëñ daara bi ko ko jàngal sa doom ak yow way jur wi yëpp yàlla na seen yaram safara wa xaythuma yubasmalu sabiyu fi maktabin yuktabu lahu laliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatun min naarihi faltaalamu noonu la ko wooyee xisa bi mooy sërif yunus sërif yunus ma nga dëkkoon ca bangeer ca wetu ca Casamance Bangeer dëkk bu ñuy wax Bangeer maam Cheikhul Hadj Abdoul Aziz xasida bi mujj bind di ñaan jàmm ci Casamance sërif Yunus moom lay tawasul ci barkeem ndax sëtu yenent bi la woon wa bil waliyil aarifil bangeeri yunusana dil mansibil kabiri ibnu rasuli mustapha al adnaani xalifatu cheikhi bila buhtaani noonu la ubbee xasida bi soog di ñaan ne yàlla yàlla nga wàccee jàmm ca Casamance sërif yunus mii la am menn mbokk mu faatu mbokk mi sàmm la woon yorooni jur jur yi daan dugg ci toolu nit ñi di yàq tool yi waaye kenn ñemewu ko ndax dafa amoon i gàllaaj ba bu yàqaan sa toolit boo ko kaasee wala nga jàpp jàppante ceeg moom mën naa am lu la dal lu la neexul ndax nit ñëpp ragal ko moom min mu sukkandiku ci pouvoir boobu noonu le mu am di yàq toolu jàmbur yi juróom di yàq toolu jàmbur yi te kenn ñemewu koo jooytu bi mu faatoo yàlla nattoo ko ñu dem suul ko heure buñ ko suulee suuf si gedd ko lii maa ngi déggee nettali bi ci làmmiñu imam Makhtar Ndiaye kër Serigne Fata ku ko xam ca pikin soo demee ca jàkka ja imam ba fay jiite mooy imam Makhtar Ndiaye soo ko laajee dana la ko nettali nii ma ko nettalee te nee na mi ngi ko nangoo ci làmmiñu maam Cheikhul Hadj Abdoul Aziz bi loolu amee ñu suul góor gi suuf si geddu ko xaw ma góor la sax xaw ma nu mu toll bu ñu góor moom mag la waaw ñu suul waa ji rek kon ma wax waa ji ah bi ñu ko suulee suuf si gedd ñu defi ñaan def doog lu ne ñu def ko dellu suulaat ko suuf si gedd ko suuf si geddu ko mooy heure buñ ko suulee ba wane ginnaaw day génnaat ci bàmmeel bi bi ñu jaaxle ñu ne nañ dem ci sërif Yunus wax ko ko mu ñaanal ko bi ñu yeggee ci sërif Yunus wax ko ko wax ko waajeeg situation mag lim daan def xëy na loolu la ko yàlla toppee nii lenn dong la leen laaj mooy ndax am na doom ju toll ci jàng alquranul karim ñu ne ko waaw am na doom joo xam ne ndaw la mu ne indil leen ma ko ñu dem jëli doom ji daal ko indil Serif Yunus jël aliwa bind ci bismillahi rahmaani rahim sàkko ko na ko waxal bismillahi rahmaani rahim xale bi daal di ko wax Serif Yunus ne dem leen ngeen suulaat ko ba xam bi ñu delloo ñu suul waa ji suuf si geddu ko suuf si geddatu ko ñëpp sant yàlla del si waat ci Serif Yunus nettali ko ne alhamdulillah waaja de biñ ko suulaatee suuf si gedd ko mu ne waaw dafa am lu ma gisoon ñu bind ko ci téere yi ma doon vérifier ndax wér naam wérul ndax li ngeen ma waxoon mandara gam ku texee di la ku yàlla namma dugal safara ëllëg la te téere yi dañoo wax ne boo jëlee sa doom jàngal ko yóbbu ko ci jàngalekat ba mu jàngal ko bismillahi rahmaani rahim rek yow woy jur waak xale baak ka ko jàngal yëpp yàlla xaramal seen yaram safara loolu laa doon seet ndax wér naam wérul moo tax ma ne na ngeen ma indil xale bi doomam ma jàngal ko bismillahi rahmaani rahim kon mën naa am yàlla yërëm ko jéggal ko yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko xool loolu mbokk yi waaw bu fekkee bismillahi rahmaani rahim moo mën a rammu ki ko jàngal nit ak ko jàng woy jur wa naka moo doom ju mokkal ay saar mokkal ay xisib ba yegg ci wàcc alquran ba yegg ci mokkal ko loolu tuyaaba ja kenn xam na nu mu toll tuyaaba jooju noonu le bu ko ay diplôme xañ bu la ko doom joo yaakaar ëllëg mu tabaxal la kër ak jëndal oto ki nangam nangam xañ déedéet jullit nga sa doom na man téere bi yow it fexee la man téere bi lii moo doon émission bi di sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla defal nu dégg ak topp ba beneen jataay ci beneen waxtaan incha allah wasalaam bëri pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj yaam